man mi candidat la euh, à la mairie de Rufisque Ouest euh, bokk ci coalition taxawu Sénégal. yàlla dafa def dama defoon jamono yële benn tournée di déglu population bi fu ne ma secteur bu ne ma dem fa bi ma fa demee période bi ma fiy ñëw dafa fekkoon noyade yi bari trop ma oo ménagères yi laaj leen lu waral lu mel nii mbiru la gaa mais il faut aussi ñu xam ñu ne on est on est dépourvu de de matériel dañu manqué ay matériel yoo xam ne dañ koy utiliser pour dimbali xale yi nga xam ne dañuy l'apsi ci géej bi loolu moo ma ut un lot de matériel ñëw pour dimbali leen ko les maîtres aussi groupement de femmes yi nga xam ne ñu ngi fii euh, ci quai bi di liggéey. waaw gilets on a un lot de vingt cinq gilets et des subventions yoo xamante ni am quatre groupements yu fi ne dama ñëw pour conseiller len xool ni ñuy ni ñu leen di structurer ekkati sama kem kàttan lima man dimbali leen ñu dugal ko seen biir ay fonds pour ñu mën fonctionner.